comme ni ngeen ko xamee gàmmu Pire dafa aadawoo xalifa bi di waxtaan ci situation bi nga xam ne réew mi mu ngi koy dund su ko defee mu indi ci xalaatam waaye nag comme ni ko sëñ musaa Gueye waxee rek sànq ci ta ci daf ci taalif bi Sénégal day war nañoo sant yàlla ndax budul woon ak moom dinañu def jànjang kon boog yàlla yaa salaamu ñu ngi lay tàllal suñu ay loxo di la gërëm ci xewal yi nga xam ni xewal nga ko Sénégal ndaxte Sénégal day wax dëgg yàlla ni ko ministre bi waxee léegi dëkk yu ñu wër am nay problème yu bëree bëri yoo xam ne ñu ngi jànkoon ñu ngi jànkuwante ak moom waaye Sénégal ci mbaaxam ci yàlla yàlla ci mbaaxam musal na ci Sénégal kon boog loolu dañoo dañ ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax waaye nag dañoo war a vigilant ñun ñëpp dañoo war a vigilant ndaxte am nay problèmes sociaux yoo xam ne suñu réew ñu ngi jànkoonte ak moom te moo tax sëriñ bi waxoon ni euh, moo tax sëriñ bi waxoon ni moo tax sëriñ bi waxoon ni moom daal li mu bëggoon mooy sujet bi nga xam ni gàmmu piir ren dina ko traité mooy rek continuité ci sujet bi nga xam ni moom la euh, alxalifa Euh, si man Mansour digle woon ni nañ ko wax waxtaane ci Tiwaawan te muy lan mu naan waqulu linnaasi xusnan na ngeen rafetal kàddu yi nañu rafetal kàddu yi ci suñu biir rafetal kàddu nag wax la ak jëf ndaxte Sénégal ñun ñëpp xam nañ ni fi mu ne xaw wi suturay góor dafee bari wax lu ñaaw dafee bari média bi sax dem nañ ba nga xam ni sooy wax lu baax kenn dootu la waaye sooy wax safaan ba ña lay déglu dañuy bari lool waaye nag yàlla nag mu ngi ñuy jox ay avertissement yàlla ngi ñuy jox avertissement bi ñu wax naan ah, yàlla day du wàcce xéewal mukk ci béréb ba pare di ko rëccu di ko rocci lu dul que ni ña ko dëkkee ñoom seen bopp ñoom ñoo jëf-jëf joo xam ni yàlla da cay doxe yàlla mën na caa doxe rocci xéewal wax kon boobu yàlla na ci yàlla musal Sénégal sëriñ bi nee na daal bu sañoon daal wax dëgg yàlla wax yi dinañ ko gën a rafetal di waxante jàmm xóoloo li naasi xusnan waaw yàlla ndax yàlla ngi wax ci alquran naan walladina yuzuuna almuminina walmuminaati bi xayri maktasabu faqad ixtamalu buhtaanan wa isman mubina te loolu waxu suñu boroom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñëw daal di koy dëggal inna dimaakum wa amwaalakum wa aradakum xaraamun aleykum waaye nag su fekkee dañuy gàmmu te ñu ne gàmmu seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam moo ko moom war nañu di roy ci moom war nañu di taataan ci ay waxam war nañu taataan ci ay njàngaleem waaye su fekkee ne dañu amu rek ku nekk jug dem ne gàmmu gu neex na te jàngu ñu benn jikkoo ci ñu koy Seydina Muhammad kon gàmmu ga amul njariñ kon jaratul ñuy gàmmu ñu maam Seydil Hadji Malick bi muy wootee gàmmu loolu moo taxoon mag ñu doon gàmmu ci ginnaawam mbokkam ma tafsir Abdou Cissé mi nga xam ni gàmmu Pire ca même bis boobu lañu ko sos ñoom góor yàlla yooyu boo gisee di doon woote gàmmu mooy pour wax nit ñi jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour ñu mën koo jikko woo ndaxte moom bi nga fiy dafa ni maa ngi dem de waaye bàyyi naa bàyyi naa leen ak ñaar ñoo xam ni su ngeen ci jàppee du ngeen réer mukk sama ginnaaw ñu ne ko lan la yaa rasulallah mu ne téere yàlla bii ak sama sunna kon boog ñun ñëpp war nañoo teg suñu tànk ci loolu ah yow nag bi nga xam ni xëy na ñu ngi lay ŋàññi ñu ngi yàq sa der sëñ bi nee na lim lay digal mool mooy bul bul wuyu bul tontu ndaxte kat boo nekkul woon dara kenn du wax ci yow dara waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni mooy gën ji xam ni yàlla moo ko tànnal boppam yonent boobu day amul lu mu deful sallallahu alayhi wa sallam amul jëf ju ñaaw juñ ko jëful wooyee nañ ko jëbarkat wooyee nañ ko wala yaasu foo xam ne du wax dëgg wooyee nañ ko kaahin lu nekk dégg na ko waaye loolu yépp mission ba ko yàlla teg moo tax bu ko yàlla tegul woon du ko dégg kon boog yow mi nga xam ni xëy na ay kàddu yu ñaaw mi ngi jóg di di dal ci sa der sëñ bi nee lim lay digal mooy bul tontu boo tontoo kon daay gi day gën di tàkk rek waaye boo nee pat loolu mën na koo fay wulu li naa si xus nan nañu waxante dëgg ci biir pénc mi te média yi am nañ ci responsabilité ndaxte su fekkee ni média dëkk bi bëri na borom xam-xam bëri na ñoo xam ni bu ñu waxee ñu dégg leen ah bëri na boroomi xam-xam bëri na ñoo xam ni bu ñu waxee ñu dégg leen waaye média yu dem nañ ba nga xam ni pour am ay view ñi ñuy woo mooy ñi nga xam ni wax dëgg yàlla seen kàddu rafetul seen influence ci société bi rafetul loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax bi nee na gouvernement bi day ñu ngi def ay effort yu colossal yu jëm ci sécurité ñu ngi sécuriser réew mi ñu ngi def effort yoo xam ni xëy nañ ñu dëkk réew bi ñëpp teg nañ ci seen bët waaye nag des na sëñ bi nee na mu ngi ñaan ñu gën koo yokk ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ni moom la ñuy roy dafa wax ci xadis ne al muslimu man salima naasu min man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi ab jullit dëgg mooy ki nga xam ni jullit yi mucc nañ ci làmmiñam ak ay loxoom mucc nañ ci làmmiñam ak ay loxoom sëriñ bi nee na jëfkatu ñaaw teef yooyu nga xam ni ñu ngi këf yëfi yëfi jàmbur dem na sax ba Sénégal loo xam ni liñ ko fi daan dégg bariwul tuur deret faat bakkan dem na ba nga xam ne léegi dafa mel ni mu ne courante ci dëkk bi yàlla na ko fi yàlla jëlee sëñ bi nee na ñooñu nga xam ni ñu ngi def ñaawteef yooyu yàkkamti rek moo tax ñu koy def yàkkamti rek moo def mu ne mu ngi leen mu ne ñooñu mu ngi leen di mu ngi leen di woo ñu dellu ci siraatal mustaqim ndaxte yàlla ngi wax naan man yattaqillah yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min haythu laa yahtasib boo ma ragalee rek te yaakaar ma man yàlla dinaa la xéewalal xéewal boo xam ni doo xam sax fu mu jóge kon nañu yaakaar yàlla te xam ni jëf ju ñaaw lan tey jëlee doo ci jëlee mukk ngërëmu yàlla doo ci jëlee lu dul ay duma ëllëg yàlla nañ ci yàlla musal kon boog euh, sëliñ bi nee na mu ngi jaajëfal gouvernement bu baax ci yi nga xam ne ñoo ngi koy def ci wàllu sécurité waaye nag ñi nga xam ne ñoo dëkk réew mi ñoom seen loxo mu ngi ci biir nañ ci dëkk am nañ ci wàll woo xam ne nii mën nañ ko ci jouer bu baax a baax ñaawteef yooyu dem na ba nga xam ni bokk na ci fi nekk nii lor jigéen jigéen dafa nekk ñoo xam ni dañoo néew doole waaye nag góor ñi ñoo leen war a protéger moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que fii lépp luñ ciy wax rek dañ koy teg ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moo ñu fi moo ñu fi tax moom mu ngi wax naan istawsu bi nisaai xayran fa innahunna indakum awaan ci xijjatul wadaa ba tey nga xam ni mën nañoo wax ni yàlla ah, yonent bi sallallahu alayhi daf ci résumé mission bi ko yàlla yónni woon mu ngi dénkaane jigéen ñi mu ngi naan maa ngi leen di maa ngi leen di dénk jigéen ñi fa hiya amaanatun min allah wa hadihi wasiyatun amma wa xitaabul muwajjah min annabii ila kulli rajulin sawaan kaana abban aw axan aw zawjan aw ibnan message bii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi koy wax mu jëm ci bépp góor moo xam baay nga moo xam frère nga moo xam boroom kër nga moo xam doom nga waaw yonent bi sallallahu alayhi di wax naan ah, ki gën ki gën a mat diine akmalul mu'minuna akmalul mu'minina inma imanan ahsanuhum xuluqan wa xiyaarukum xiyaarukum li nisaa'ihi waaw mu ne ki gën mat imaan mooy ki nga xam ni moo gën a rafet jikko waaw kon jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee loolu la wax dafa ni man de yàlla daf maa jabal par ma mottali jikko yu rafet yi kon moom loolu rek moo doon mission wam waaye waaye kon ñun nañu jéem a jikko woo jikko yu rafet yàlla nañ ko yàlla yombalal yàlla yombal ko ci biir dëkk bi te mu ne ki gën ci yéen nit mooy ki nga xam ni moo gën ci jigéenam kon jigéen ñi nañ leen bàyyi xel bu baax a baax te yërëm leen te wattu leen te aar leen sëriñ bi nee na mu ngi rafetlu euh, initiative bi nga xam ne président de la république monsieur Macky Sall def na ko bu yàggul mooy fi mu woowee euh, sëriñi daara yépp yi ci Sénégal woo leen pour échanger ak ñoom pour xool lu ñu mën a ñoŋalee nekku daara yi ak nekku ndongo daara yi parce que képp kuy yeewoo fii ci réew mi gis nga ni wax dëgg yàlla ndongo daara yi ni ñu nekk ci réew mi jaaduwul waaw jaaduwul te ñooñu lañu waroon a gën a bàyyi xel ndax yonent bi sallallahu alayhi wa koy wax mu ngi wax naan xayrukum man taallama alqurana wa allama ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran ba pare di ko jàngale kon ñooñu dañoo mérité suñu attention bu baax a baax a baax a baax waaye nag dafa am benn problème boo xam ne dafa am ci réew mi gis nañ ne saa bu gouvernement jugee pour def ay réforme ci daara réforme fu mu jaar dina xaw a indi coppite loolu c'est normal waaye dañoo gis ne su coppite yooyu commencé rek dina am ñoo xam ne dañuy jóg naan dañuy xeex alkuraan ci réew mi sëriñ bi nee na day réew mi di Sénégal day moom gëmul ne am na ku fi yeewoo di xeex alxuraan waaw te nag bu demee sax ba am nañ leen bàyyi ak boroom alxuraan ndax moom moo wax ni inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la xaafizuun kon képp kuy xeex alxuraan moom na jëflante yow waaye daal suñ bi daal nee na mu ngi rafetlu boobu initiative te képp ku dëkk Pire di nga rafetlu loolu ndax na ko ministre bi waxee sànq Pire dafa mos a nekk dëkku xam-xam mos a nekk dëkku alquran ah, ñun nag monsieur le ministre ñu ngi lay yóbbante ci euh, président de la république mu bàyyi xel daara yi nga xam ne ñoo nekk Pire bu baax a baax a baax ndax te wax dëgg yàlla ñoo euh, daara yi ci dëkk yi ci réew mi yëpp euh, fulaal nañu waaye suñu daara yi tamit nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax monsieur le ministre. Euh, wax nga sànq ne na sëriñ bi ñaanal réew mi ndax jafe-jafe yi nga xam ni mu ngi mu ngi ci àddina bi bàyyiwul fenn man mii yàlla dafa def mooy dund Amérique Amérique lépp lu doon jar benn fi mu nekk ni juróom lay jar kon loolu fépp la laal Sénégal nag boo waxee dina da ngay politique waaye nag réalité bu defee rek nañ ko wax problème boobu dafa laal àddina bi yëpp dañoo gën dañoo génn ci Covid ñu jóge ci dugg dugg ci guerre Ukraine ak euh, Russia kon loolu yëpp dafa am impact ci àddina bi sëriñ bi nee na mu ngi rafetlu jéego yi nga xam ni gouvernement wu président Macky Sall mu ngi koy def pour oyofalal euh, citoyen yi dund bi waaye nee na mu ngi koy ñaan mu yokk ko ndaxte fi mu nekk nii situation bi ci dëkk bi metti na nit ñaa koy yëg bu baax a baax a baax kon nag effort yooyu mi nga xam ni mu ngi koy def sëñ beneen nee na mu ngi ñaan mu yokk bu baax a baax a baax euh, monsieur le ministre nag dañ lay yóbbante ci mën naa ni président ak ministre de l'éducation nationale parce que dañoo am fi benn institut islamique boo xam ne sëñ Moustapha Cissé moo ko fi defoon collaboré ci ak libyen yi institut baa ngi fii di dox booba léegi ñu koy woye Ummul Qura la mère des vallées muy université boo xam ne wax dëgg yàlla seen programme pédagogique réew mi sax dañ leen war a jàppale ndax dañ koo teg ci njàngaley mag ña waaw ñooñu dañuy xeex li ñuy wax euh, tatarruf dañuy xeex li ñuy wax euh, extrémisme intégrisme loolu la ñuy xeexte dafa nekk institut boo xam ni juróom-ñetti dëkki africain yoo xam ni ñooñu wër ñu nga fay jàng te ñu wax dëgg yàlla seen programme pédagogique macha allah waaye ba léegi seen diplôme n'est pas reconnu par l'État kon ñu ngi lay ñaan ah, nga def ci loo mën waxtaan ceeg boroom réew mi ak mu ministère ministre de ministère de l' éducation nationale ñu jàppale ñu ci loolu loolu soo soo amee dina baax loolu parce que ñoom même programme lañu am que université bi nekk lii bi mais ñi ñi jàng lii bi bu ñëwee fii dañuy reconnaître seen diplôme waaye ñi génn fii duñu reconnaître seen diplôme loolu doy na waar trop moo tax ñu ngi ñaan ñu jàppaleen ci bu baax a baax a baax a baax ah duñu daaneel nag ni ko comme suñu frère Abdou Aziz Mbaye li mu ko waxee rek tur gii day mérité na li nga xam ne mu ngi am ci ëttu diine yëpp waaw parce que su fekkee ni diine rek la tur mérité na ko waaw ndaxte foo xam ni wax nga ko léegi monsieur monsieur le ministre dëkk bi depuis mille six cent trois ñu ngi fiy jàngale diine l'islam depuis mille six cent trois fi la ay ponkal yu bëri jugee dem defi révolution kilifa yu bëri jaar fi kon boog dëkk bi mérité na lépp li am ci foyer diine yi mu am Pire te Pire yaakaar nañ ni am nañu ay doom yoo xam ne liggéeyal nañu réew mi lu tax mu mën a loolu mën a am fii liggéeyal réew mi ci wàllu médecine économie politique ak relation extérieure kon mérité na loolu ñu ngi xam nañ ni nag président de la république yitte yi bari na soxla yi bari na soxla askan bi bari na waaye mu bàyyi ñu xel ci loolu amoon na te ay lobby sax yoo xam ne jugoon nañu volontaire parce que tamit ñun Sénégal dañoo war am esprit volontariat di volontaire di jóg di def dara te bañ di xaar gouvernement ci lépp ñooñu jugoon nañu jël initiative di dajale seen i dërëm ak seen ñaar dërëm pour def ko fii kon boo gouvernement na ñëw dooleel ñooñu su ko defee loolu mën fee am sëñ bi nee mu ngi ñaan réew mi yàlla na fi yàlla yàlla na fi yàlla sotti jàmm Sénégal yàlla na ko yàlla musal ci saytaane xéewal yi nga xam ni feeñ na fi muy pétrole di gaz am na réew yu bëri yoo xam ni ba mu fa amee dañ koy woyee malédiction waaye yàlla bu mu nekk malédiction ci mim réew yàlla nekk loo xam ni ah, askan wi dañ ci jariñu yàlla musal Sénégal ci seytaane woowu nga xam ne mu ngi la xasu ci loolu waaye nag sëñ bi nee na waa ñi nga xam ni ñoo nekk ci parlement bi assemblée nationale sëñ bi nee na mu ngi leen di ñaan ñu delloo ci seen xel du ñëpp de waaye am na ci ay comportement yoo xam ni wax dëgg yàlla rafetul ci deru Sénégal ndaxte ñi nga xam ni ñoo leen tànn yabal leen foofu ndaxte arab day wax naan ar rasul bi qadril mursil ku ne ndaw lu ne ka yabal rek moom ngay représenté te yaakaar naa ni ñi nga xam ni ñoo leen voteel yónni leen foofu xaaruñu ci ñoom boobu comportement ndax ñoom meluñu noonu kon ñu ngi leen di ñaan ay débat ji dee lu am solo la ñàkk wuute ay xalaat lu am solo la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko mu ne inna mu ne ixtilaafil ulamaa yi rahmatun ñi nga xam ni ñoo yor ñeenti ngir yi ci lislaam dañoo dañoo dañoo wuute waaye yonent bi dafa wax ne loolu yërmande rek la kon boobu débat guidé ah débat démocratique lu ñu soxla ci réew la parce que bokk na ci li nga xam ne dafay jëmale réew kanam kon nañu moytu attaque personnelle yi fay am moytu wax yu ñaaw yi ndaxte session yooyu dañ koy télévisé muy dugg ci kër gu ne xale yi di ko seetaan te xale yi kon dañuy yaakaar ne lii kat mooy politique déedéet sëñ bi nee na mun a yaakaar na ni loolu solution bi mu ci xalaat pour mu am ci mooy ñu xëy na dañ leen a war a defal formation balaa session di commencé wala balaa législature di commencé wala ñu jàngal leen xamal leen lan mooy rajo député ci assemblée nationale loolu def ci assemblée nationale du xuloo du xaste sëñ bi nee nag joxoñul kenn day parler d'une manière générale parce que citoyen la njariñu Sénégal da koo yitteel jaru Sénégal ci bitim réew da koo yitteel comme ni mu yitteelee ñun ñëpp loolu moo tax muy wax waaw ah, sëñ Mansour yow ak saay rak sëñ Mame Abdou Cissé sëñ Maodo Cissé sëñ Cheikh Tidiane Cissé ak sëñ Maguette Dramé bu ñu leen tuddee daanaka tudd nañu njaboot gi yëpp ñun ñi nga xam ni ñooy sët yi sëñ Mansour ñu ngi lay ñaanal yàlla yàggal la fi yàlla doole la wér yàlla ñoo di sa fan ndaxte wax dëgg yàlla sëñ Mansour yow mën naa wax ni kenn daaw la gis nga toog fii xëy na li nga nekk tey jii moo tax nga toog fa mais bi fi sa say baay nekkee bi fi sa mag nekkee mën naa wax ni kenn xamula woon sax fii mosoo fee toog ñun ñii ñi nga xam ne duñu dara dañ fa daan toog waaye yow mosoo fee toog moo tax nag tey ji yàlla fay la lii mu la faye ñun day sët yi ñu ngi lay gërëm di gërëm say rakk ndaxte wax dëgg yàlla uuf ngeen ñu yiir ngeen ñu yéen a nguy teg yéen ngi ñuy teg ci yoon kon bokk ñu ngi leen di ñu ngi lay ñaanal yow ak say rakk yàlla mi nga xam ni moom la dara tawul yàlla may leen fan bu gudd yàlla musal leen ci seytaane ndaxte seytaane dafa bëri doole te fu mu warul dugg rek lay dugg yàlla na yàlla musal ci seytaane comme ni mu ca musale woon seen bàyyi ya loolu lañ leen di ñaanal yàlla na ko yàlla def suñ bi nee na mu ngi ñaanal président Macky sàll yàlla na yàlla jàppale ko yàlla na yàlla éclairé ko ba nga xam ni naal yi nga xam ni moo ngi koy naalal réew mi yàlla may ko mu àggale ko ak sagoom ndaxte wax dëgg yàlla ku am seetlu di nga gis ne wax dëgg yàlla mu ngi def ay effort yu colossal pour lu jëmale réew mi kanam wa ma shahid naa illa bi ma alim na li ñu gis rek nag la ñuy seede